waaw mais en tout cas sant yàlla bu baax euh, def na li nga xam mooy suñu devoir wote nan wot bi am na solo ndax population bi génn nan ku ne xam na ne tey massivement koor la moo tax ñu ñëpp teel a xëy ñëw wote si gis nañ di aussi situation bi parce que li ñuy mooy incha allah ñu xaar ba 19 heures Sénégal mën a tànn ki nga xamante ni moom la war mais li ñu ñor mooy def na li nga xam mooy suñu devoir dañu sant baax incha allah jërëjëf sa merci incha allah jërëjëf